Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour de ce mardi 12 décembre 2023 sur la chaîne des grands événements VIP People TV suñu jógee foofu dañuy dem ca conseil constitutionnel qui bi nga retrait liste de parrainage yi def nañ ko ba noppi ku ci nekk di collecter ay parrain nous avons ñenn ñi dem fële ca caisse de dépôt et de consignation déposer seen cochons, dañuy avons ni que daal ba ñuy liste de parrainage yi buuxante bu métti moo amoon ci direction générale des élections de la Fall diteko ko ñëpp daw wuti ji du jël seen ay fiche de parrainage bi ñu jëlee fiches de parrainage Nous avons tous candidat à la candidature aux prochaines élections présidentielles du Sénégal de février 2024 ginnaaw nous nag dépôt caution yi gis a ko foofu ca CDC waaye dañuy gis que fléau bi nga xamante amon na fofu ci direction générale des élections ginnaw ay feuilles donc lañ doon jëli ak ay clé nu mu baree woon ba ñu constaté ci lu tollu ci 267 candidats manam ñaari téeméer ak juróom ben fuk ak juróom-ñaari nit yo xamante dem nañu jëli seen ay fiches de parrainage ak ay clé pour dagan batu askan bi le 25 février 2024 ginnaw lolu quatre nañu bi waxtu déposé du caution yu joté fofu ci CDC bi ñu amee ñaari at pour mëna collecter sen ay parrain li ñu gisagum foofa ca CDC matagul li nga xamanteni mat na fukki candidat ak juroom yu déposé seen caution de 30 millions ana yenen candidat yi dañu démon pour am buzz dañu démon pour se faire un nom dañu démon pour chahuter dañu démon pour def clown dañu démon pour def comédie en tout cas c'est une question qu'on se pose jamono ji nak li nga xamanteni moy conseil constitutionnel moy daj depp bi fofu moy dernier virage fofu la sayto ndax parrainage yi baxna fofu lañuy la ndax bép citoyen bo xamanteni bëgg nga dagaan baatu askan bi bép condition bo xamanteni république du Sénégal mi ngi koy laaj pour que nga mëna a doon président de la république ndax matal nga ko boobu ba tey nag lañ ko ubbi manam le 11 décembre 2023 ba le 26 képp ko xamanteni candidat nga am nga sañ-sañu dem déposer yi waye luñu jaxal jaaxal démb ci 11 décembre bi suñu leen xaymalaa ñaata candidat ñoo dem déposé Il y a ni zéro candidat ñoo dem déposé au conseil constitutionnel le 11 décembre lu c'est un parrainage yi matul amuñu caution wóoluwuñu seen bopp wala dañ doon show wala kulun lañ doon def wala comédie en tout cas doy na waar li ñu mën a xayma daal démb ci altine bi kii di conseil constitutionnel ubbi na portam pour daal jël bépp candidat boo xamante ni bëgg nga doon président de la république au soir du février 25 février 2024 waaye lu ñu jaaxal daal benn défi lañ fa gis muy ay mandataires yoo xamante ni ay représentants de parti yoo xamante ni wala coalition ñoom ñoo war a débuté altine démb bi nga xamante ni suite ci décision bi nga xamante ni conseil constitutionnel jël na ko pour ay modalités yi nga xamante ni jëm na ci wàllu présidentiel mu jëm ci dépôt dossier de candidature L'Olou daal war ko def greffe bi mu doon institution le xamanteni e mi ngi nek ci diggante 75e jour ak 60e jour avant li nga xamanteni moy premier tour scrutin du 25 février mais dans la bataille ci la di altine fukki fan ak ben ci wéru décembre képp koo xamante ni candidat nga te enregistré wu nga jusqu'aux dernières correspondances jëm ci li nga xamante ne mooy talaata ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre atum 2023 say dépôt mën na fa nekk ginnaaw bi nga xamante ni ay jour la yoo xamante ni ubbi nañu seen buntu lu ko toll juróom-ñetti waxtu su jotee ci suba ba juróomi waxtu ci bëccëg maanaam 8 heures ba 17 heures di rappeler que képp koo xamante ni dernier jour délai dépôt bi ben permanence boo xamante ni dina assurer foofu ca greffe conseil constitutionnel ba minuit en tout cas ñi ngi leen di xamal daal lii di conseil constitutionnel ubbi na ay bulletam démb ci altine fukki fan ak benn ci weeru décembre xamal leen que daal bés bu nekk dinañ ubbi 8 heures ba 17 heures ba fii ak mardi 26 décembre di jot nga xamante ni mooy date de clôture li nga xamante ni mooy dépôt bi te jour boobu dinañ fa teg benn permanence boo xamante ni dina ubbi ba minuit pour permettre képp koo xamante ni retardataire nga déposer sa candidature waaye gisooguñu benn candidat bu yóbbu lii nga xamante ni mooy dossier de candidature foofa ca conseil constitutionnel te yaakaar naa ne bi mu tàmbalee waxoon naa leen ko fii ci samay émission man du ma waxum magum waxoon naa ko magum xamoon naa ko la ndaxte newoon naa leen ñii di show yëpp di one man show dañu bëgg am benn ouverture prox ndol la boo xamante ni mën nañu takk micro yi takk rajo yi toogaat ci télé yi ak plateau yi di fen suba ngoon guddeeg ba cëg parce que amuñu programme amuñu solution amuñu caution ñi nga xamante ne amuñu sax luñu ñu jëndee essence dem di jëli ay fiche de parrainage ne dañu bëgg a dagaan li nga xamante ni mooy réewu Sénégal bokk na ci yabaate waaye yaakaar naa ni tungu ne du teew ñi nataal comme dañoo mën am sañ-sañ bay jëli fiche de parrainage yaakaar naa ni dossier de candidature yi ubbil nañ leen ko lundi 11 ay la mardi 12 ana kan moo njëkk a déposé ci euh, candidature am gisoo kenn xuraax ni xëddeem en tout cas li nga xamante ni mooy euh, dépôt candidature pour aux prochaines élections présidentielles euh, de février 2024 kii di conseil constitutionnel ubbi na ay buntam démb ci altine fukki fan ak benn ci weeru novembre euh, décembre atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ba keroog talaata ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru décembre atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett waaye gisooguñu benn candidat teew foofu <laughs>